salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet point com kon ni ñu ko defee saa su nekk di leen wëral ndaanaa ne Père Max yaakaar naa ne xàmme ngeen ko waaw bii passé toog nañ ñu waxtaan ak moom waxtaan bu am solo du ñu def lu dul rek jox ko kàddu bu nuyoo rek ñu dikk ak moom ci waxtaan wi waa di euh, sant yàlla bu baax rek di julli ci yenentam bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi mm-hmm. di ñaan koor gi ñu dëgmal yàlla def ñu war ko ci jàmm rek te luñ ci ñaan yal na ko yàlla nangu rëcc rëcc yàlla jégal na ko mën na ko yàlla na ko def mm-hmm. jërëjëf Fils. Mhm. mi ngoog père li nga koy laajte mooy père gis nañu ah, fan yi passé ñi dégg ne Balla Gaye ak euh, Boy Niang combat ba dafa taxaw. Mhm. ñu doon la nan la gisee ñoom ñaar ñu nekk ci préparation war a bëree kii war a bëreeg Tapha Tine euh, muy euh, Boy Niang Balla Gaye war a bëreeg Bombardier ñu ngi laaj loolu nan nga ko gisee. waaw ni nga koy gisee rek mooy ñoom xam nañ ne lamb temps la. Mhm. période bu ndaw la. dimanche boo toog wala samedi bëree ko yaa ngi perte at yi du la fi xaar doole ji du la fi xaar. te nga daan bëre galaa ñetti combat ci benn saison mais ay at a ngi nii benn combat rek ngay bëre di xaar te làmb di sa métier. kon boo amee chance promoteur yi bëgg la. nga war a bëre ñaari combat jëlandoo ñaari avance mu ngi mel ni ngay xëy di liggéey rek. loolu avantage bu mag lay doon. nit ñi nag léeg-léeg ñu naan risque la ak bon parce que ñaara lay préparé mais ñoom ñaar fi mu ne Balla Gaye moment biñ toll. ci bombardier lay concentré wu. booy ñaa tafa moment bii. Mhm. ci tafaatin lay concentré wu buñ bëree ba noppi nag am avantage yu bëriwaat beneen combat ci janvier deux mille vingt deux. Mhm. loolu chance la. Mhm. mais tamit père sénégalais yëpp dañoo gis que ni comme duñ ah, ñu jëlaat benn avance ci suuf ah, ah, am benn problème ci ñaari bëri. neex rek jël avance xaalis bu bëri yóbbu sa kër. préparé ndax at moo toog bëriwoo ko yaa ngi perte àddina la fi xaar doole la fi xaar nga toog un an bëriwoo ndax Covid bi lëmbee àdduna. lëmbee réew mi dal sport. ñu toog booy débuté dañ naan du doon mbër nga doon mbër ñu ne lu mu ci am. ñaari combat dañ leen mën nga cee dara. te it nag chaque jour da ngay entraîné ñoom même bu ñu amul combat dañuy entraîné. yi ngay def entraînement moo gën a métti làmb. waaw nit ñi ñoo koy wax rek mais yeneen mbër yëpp ku ci amoon avance yi jël. yeneen mbër yëpp ku waaw waaw da ngay bëri dem bi ci leneen chaque jour yaa ngi entraîné. mais adversaire yi père problème adversaire yi. déggoo li ma wax dañoo ubbi làmb ji rek. Mhm. ku ne xam na ne. Boy Niang ak Balla gay xalaatoon nañ sax moo nar a njëkk a taxaw que Boy Niang Tapha Tine xalaatoon mooy njëkk taxaw que Balla gay ak Bombardier kon combat la boo xam ne dafa nekkoon ci bopp nit ñi te làmb moo leen boole et am ñaari ndaanaan yoo xam ne bokk nañ ci mbër yi gën a siiw mhm. muy Modou ak Balla Gaye ubbi nañ bunt bi may seeni rak chance mhm. Modou Lo dem jëli Ama Baldé mhm. Balla Gaye jël booy ñaa ndax am na mbër yoo xam ne dañoo bàyyi làmb ñii ci desi leen dese bëriwul mhm. au moins ñoom ubbi nañ buntu làmb ji bañ a yemale VIP yi ci juróom mbër kon dañoo ubbi dañoo ubbi dañoo ubbi làmb ji waaw comme père nu mu ko waxee nee na gars yi dañoo ubbi làmb bi tamit ah, duñ demaat ci chaque jour rek ah, ci làmb parce que père kuy waxtaan da ngay waxtaan moom ci làmb fanee paax ñu gisoon arène nationale bi gars yi toog wax lu nekk bu président euh, tijji leen arène nationale defal leen ko ñu gis ki rek ci stade bi ay ñaawteef ñu gis ne benn mbër dañoo daan euh, kii yi benn supporter dañoo daan mbërëm ñu yàq stade bi ñu daal loolu la nan nga ko gisee. waa euh, am naa ci mbër ndax fils de Langsane maa ko yor. Mhm. te moom mbërëm dafa daan sax xale yi yàq mais neexu leen ñoom dañu ñëw moo tax bi ñu leen sanctionné mhm. dama ne mbëri victime lañu donte nag ñoo indi ña doon yàq mais ñoom yàquñu. ñoom dañoo dem naan fans yi bu leen yàq jël siège yi di leen ko delloo naan leen bu leen yàq làmb ci mais ñu sanctionné leen mais ñi ngi waxtaanaat démb rek dem naa réunion ndax woo nañ ñu mais les composantes de la lutte yëpp woo nañ leen ñu bëgg a tànn benn journée boo xam ne deux cent treize sièges ya fa yàqu danañ dem defaraat ko woo presse bi ba defaraat sax la fa yàquwul ndax ñoo ko moom ndax arène benn arène rek la càppaa coli la benn bëñ day fonta weex yëfi ñëpp la waaw mais mais tamit père est loolu bu ñu ko gisee tey ji lan la mën a andil làmb comme violence bi ko gars di waxee chaque jour ñu naan làmb violence la à mu tijji mu am loolu non violence fépp la am assemblée sax dañuy xeex donte rafetlu wuñ ko nag mm-hmm. fii lañ Sénégal 92 fii lañ ñu gagné ñu yàq ñu yàq stade Léopold Sédar Senghor ba yàq sax siège fédération yàq nañ ko fi donte encouragé wu ma ko kon daa am ñi yàq kenn rafetluwul yàq mais damay bañ ñu defee ne làmb rek la mais dama ne waa làmb li jot a yàqu réunion li ñu mujj tenir danañ dem les composantes dajaloo fa defar ko ba wane ne lii jaaduwul ñun waruñu ko yàq kon dañ koy ñaawlu yàq bi kenn rafetlu ko man keroog benn instant sax bëggatu moon xale yi filmer ko loolu ànduñu ci te it nag dinañ waxtaan ak nii buñ journée boobu bu amee ba noppi nag mhm. danañ dem ci école yi ak école de li di waxtaan ak ñoom bu lu mel ni bañ a amati mais mboolem li nga yàq ñu ngi waaj benn journée mhm. boo xam bu ci yàlla àndee danañ fa dajaloo les composantes de la lutte mhm. la fa jot a yàq ñu defar ko ba pare nag sensibiliser xale yi ba ëllëgee lu mel ni bañ am. waaw loolu moom yaakaar naa ni père wax na ko tamit duñ def lu duggaat ci combat boo xam ne aussi mooy lëmbee na ba léegi di di combat Modou Lo ak Ama Baldé père combat boobu bari na waa làmb égal coow mais rawati ñaar seen yoon dafa gudd amaana yàgg na ko topp mais fi ko Modou jëlee nag mooy affaire bi Modou fu mu ko jële waaw da kon defal say preuve mhm. mu dem ba daan magam di ama seen mhm. doon roi des arènes ba pare jël ko mhm. kon am na lu mu bëgg a wane ba pare tamit père togg mu ah, dañoo demoon taay pass signature ah, Ama Baldé ñu dem ko ñu Ama Baldé gars yi dañ fay teg perte maa teg nañ fa ñàkk daal bu fekkoon babi la dañ naan teg nañ fa jeexal Ama Baldé loolu loolu noonu euh, est-ce taxaw ak jàkkaaroog Lo. xam nga Ama la mu gëm mooy li ko woy juróom waxoon lu mu manqué ci làmb da nga ko indi. kon moom gëm na ne li papaam doonoon war na koo doon war na doon lu raw sax roi des arènes moom loolu la gëm. Mm-hmm. Modou Lo lu mu am lu ne gëm-gëm moo ko may. Mm-hmm. moom juddul fekk ngëm ngemb li ci kër gi. mais moom gëm na ne gëm-gëm rek am solo moo tax moo ko agsiloo bi mu yegg si fii. Mm-hmm. bi muy ñëw Modou rek la tudd xereñ gi da koo dab. moo di gëm-gëm ba doon roi des arènes. Mhm. ak taay bi mu yor te bi mu doon ñëw dañuy wax matul mbër. mais liggéey rek ak gëm-gëm moo ko may li mu doon. Mhm. dañaa xale boo xamante ni lu ko bëtam may. Mhm. fitam du ko ko xañ ndax foo taxaw mu fekk la fa. waaw combat bu métti lay doon. kii daa xarañ kee du maye dara. combat bu métti lay doon. mais père neex man ni ko gars yi analyser. non day combat métti ñoom ñaar sañ-sañ la ñuy demee ak gëm-gëm. du hasard mbooloo mi topp leen mboor mbooloo du topp nit rek nii rek ci yaama neex wala sa bët yu rafet yi. da ngay doon jàmbaar di def fulaak fay dañu topp la. xeex bi ci kan la non ñëpp xeex dañuy xeex dañu bëre. mais père seetaan ngeen ñëwoon xam. dañuy xeex dañuy a jaar dañuy xeex dañuy bëre. Modou Lo ku ne xam ne la. Mhm. mais Ama Baldé mbër mi dàq xeex ci mbër yi muy Malick Niang bi muy bëreeg moom. Mhm. da koo kawate da koo daan. Mhm. fii tey xeex te ñeme na damay bañ ñu ne moo doo dàq xeex rek mu ñëw soo soo sóor xeex bi du ko ci jox cër. Hmm. mën ngaa jël koobu yàq sa làmb ñoom ñaar dañuy xeex dañuy bëri. jërëjëf père kontaan nañ ci yow comme ni nga ko defee chaque euh, chaque jour rek saa yoon la wooyee incha allah nga yombal ko te loolu noonu euh, ku oyof sa gudd fan ak ci weeru ko lépp loo xam ne bëgg nga ko rek euh, yàlla na ko suñu boroom defal mbokk internet Dakar Net yi loolu leen andaloon jaajëf père.